murtajan minnatun lana jariun aousu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan te di ñu déglu dellusiwaat nañ seen jataay bi ñu tudde madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci seen sit bi ñuy wax 24 actu ñu dellu di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm ak tawféex di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ci réew mi ak ci bitim réew di ñaan wax ji ni wax yàlla na sunu borom defal fatxu te yàlla na ci yàlla defal loo xamante ni ak jariñu lay doon ñi nga xam dañuy bàyyi seen temps ak seen itte lépp di taatan di déglu wax ji yàlla na yàlla jariñ leen te jariñu xanaa ñu dellusiwaat tey ci benn tomb bu xaw a itteel boo xamante ni ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel muy dimbalante dimbalante nag te yàlla tax te yàlla rek tax nga xam ne seen tuwa ci ginnaaw dara séentu woo ci tamit ci dara lu dul payeeg yàlla rek nga ci séentu ndax buñ seetloo ne doomu aadama mënul dara yonante bi sallallahu alayhi wasallam boo jàngee Wadduha sun borom def ko ci yedd lu bari ne ko fekkuma la woon nga réer mu ne ko waaw ma xamal la fekkuma la woon nga ñàkk ma amal la fekkuma la woon nga doon ab jirim ma fexe ba ñëpp xam la kon loolu li muy tegtale mooy doomu aadama ji dañ koy dimbali bi mu koy yónnit daf ko wax ne ko innama ana rahmatul muxdaatu wama arsalnaaka ilaa kaafatan linaas loolu lépp day wane ne kon yërmande yonent bi salaa salaam dafa matale lépp dafa matale lépp te sunu borom nee na irhamu man fi lardi yarhamu man fi samaay ci hadiisu si yërëm leen ñi ci suuf ndax ñi ci kaw yërëm leen kon loolu li muy tekki mooy te mooy ci la yërmande nit ki fekk amul xolu xolub du mën a dimbale ndax du xam nit ki feek xiiful du xam coonab xiif du xam lan moo nekk ci xiif ban problème boo gisee ci koor doon nañ ko wax koor li muy jànkonteel nit ki nga xam ne dafa xiif yendu vingt daanaka lu mat fukki waxtu ak nangam toog lekk ko naanu ko kooku bu yendoog loolu ba ngoon jot mu naan la xelam war a dem waaw man lii ma yendoo tey méttit yu métti mbaadu nit ñi amul ñu ko yendoo bis bu nekk amul ñu ko dëkk weer wu nekk amul ñu ko dëkk jamono ju nekk loolu sa xel war na cee dem heure boo xalaatee ne am nañu dëkke loolu waxtu wu nekk bis bu nekk boo dogee ba noppi di nga am loo def ca sa alal yàlla nag ñi mu jox daf leen joxeloo ñi mu ñi mu jox lu leen ëpp daf leen a séddale loolu waxu leen ñu téye ko te téye gi ëpp na lool nit ñi li ñuy wax ne almaalu saqiquru alal dafa sox ci xol xanaa mu yonante bi salaa salaam nee na ku la man ci joxe bu ngeen xeexoon moo lay man yonante yàlla bi de këram daana toog ay weer yoo xam ne dara du fa tàkk dara ñetti weer yoo xamante ni ñaari yi rek lay dunde ndox mu ñuul ak tàndarma Aysa daana ko wax daana ñaar yu ñuul yi rek lañuy la ñuy dunde buñ ko laajee mooy lan mu ne tàndarma ak ndox yooyu rek la ñuy lekk yonent sallallahu alayhi wa mas nañ koo jox sarax soo xamante ni wala lu waroon a jëm mu julli suba teel bi mu jullee da daan toog def ay lawraat yu yàgg waaye yonent bi sallallahu alayhi dafa ne sëlmal rek ne bërit daal di dem ci këram xam ngeen ne këram soriwut woon ak jàkka ji daal di dugg daal di fay génne lu fa nekkoon mu ñëw jox ko nit ñi biñ ko laajee <clears throat> li nga doon def yonent bi loo ci jublu mu ne leen dafa am lu ma joxoon lu ma waroon a jox jullit yi te mu fanaan waru fa woon a fanaan. loolal sama xel dem moo tax ma jóg di ko joxe xam ngeen ne kooku de bàyyiwu fi dara bi mu fiy jóge bàyyiwu fi jën alal mag ñi woote ci lislaam it ku ci nekk dégg na liñ daan joxe ci alal liñ daan joxe mësunoo fàggu mukk mukk ñaari dépasse yu newandoo seen kër ñu néew a néew néew ngay dégg ñu nettali ko lu nu am jox nañ ko seetlu nangam ñu lottu ñi nga xam ne dañoo lot amuñu dara ñu natt dugub wala natt nangam boole ci néeg ba guddi ñu yónnee ko ci kër diw sàngam am na ci gor yoo xam mënunoo tàllal seen loxo di laaj gor soosu nag la nga ko mën a dimbalee mooy nga fekk ko fa mu nekk xam ne yàlla ndax ku am du nëbb ku ñàkk du nëbbu nit ñi ku la am ku am bu la rombee nga xam ko ku ñàkk bu la rombee nga xam ko rawatina koo dëkkal ci benn koñ wala rawatina koo dëkkal ci benn dëkk nga yëg ne yow da ngaa war a jàpp ci sa bopp ne yëg ne yaa war a dimbali ñëpp ku nekk nga xoole ko ne daa amul yenn saa sax nga joxe ba jox ku la ëppale ndax jàpp ne dafa amul moom nit ki dafa war a am njariñ nee na bokk na ci am njariñ sax ngir jariñ nit ñi maanaam montor bi nga doon takk nga bàyyi ko sa kër sax laaj ki nga dendal ne ko ban heure jot ngir ngir mu amu yiw ngir moom mu amu yiw waaye bopp sa bopp rek nit koo xamante ni itteem jëpp jëpp mu ngi dale ci boppam aki doomam ak i soxnaam loolu bu fekkee ne nit ki loolu rek mooy itteem bee boo mu toog banku faatu xam ne picc yi di naaw loolu mooy seen itte amuñu benn itte te ñoom dañuy wakkirlu ci yàlla yonent bi salaa salaam nee na bu fekkoon ne nit ñi wakkirloo woon ne ni picc yi di wakkirloo yàlla yenkawal leen jariñ leen ni muy jariñi picc yi kon doomu aadama na xam ne yàlla def ko fi bind ngir muy jariñ njariñ yooyu nag bu ci aj dara diw maa ko dimbale mu takk jabar bu du woon mën a du am jabar bu du woon yooyu déedéet day yàq jëf diw maa ko dimbale palaasam bee ngeen gis bu du woon mën a du am palaas bu mu kii kon mi ngi fi nekk dama ko fekkoon muy taxawaalu déedéet dimbale ko rek te yàlla tax saxaba yi de ni nu àndee woon ñoom ñépp dañ daan def Seydina kër bu fekk woon di nettali ci taarix doo xam lan la def ci lislaam bu fekkoon bindkat yi ak boroom xam-xam yi bindunu doo xam lan la def ci lislaam ndax bëggut woon ku ko wax bëggut woon ko wax bu dul woon loolu doo dégg mu Ousmane joxe na ba yonante bi salaahu salaam ne Ousmane mënatut a def loo xam ne bàkkaar topp na ci te loola lépp taxul gis ngeen Seyna Ousmane bi ñu koy rey bi koy fekk muy ci këram gaw kër gi dikk bi mu dikkee ñi àndoon ak moom dañ ko wax ne ko ñi ngi kaw kër gi de mu ne leen bu ci kenn yëngu bàyyi leen bu kenn def loo xam ne day sabab ci usmaan la jóge ngir ñu lor kenn ci jullit yi bàyyi leen leen nag Ousmane dañ koo fekk mu yor téeréem di jàng ñu fab ko ca ko reye ci koo xamante ni yonent bi salaa salaam nee na la sa àjjana leer na nee na lay tamit eh, bokk nga ci ñi nga xam ne Ousmane mën a def lu ko génne ci lislaam mën a tuta def lu ko bàkkaar fekk waaye teewul loola lépp mu sàmmoonteel di wut saaba yi ñaar lañ daan wut ñaar ñetteel amu ci woon mooy bu xeex masaana taxaw mooy ñu dem gañe ci xees bi lislaam fitti wala ñoom ñu dee dem àjjana wutun woon dara wutun woon lu ñuy denc wutun woon lu ñuy kii am na ñu ci daan am alal ñoo xam ne dañuy mujj dikk ci yonante bi ne ko sama alal dama ko bëgg a xaaj lenn li ma def ko ci lislaam wala dama bëgg jël lépp def ko yonante bi ne la xaaj ko bu doonee ñetti xaaj nga jël ñaari def benn bi ci lislaam am na ko ko ci wax mu ne ko déedéet naa ko xaaj jël ñaari def ko ci lislaam benn bi wala ma xaaj ko jël benn sulus bi benn bi ma def ko yonente bi ne ko ëpp na ndax nit ki tamit woccal doomam lu mu ko mën a ëllëg nit ko boo fi jógee sa doom wër di yalwaani wala di ñaan loolu baaxul waaye nag waxunu nga dajaleel ko àdduna bépp nga bëgg koo dajaleel sa njaboot te loolu nga fi bàyyi am na ñoo xam ne fi bàyyi waxuma la ci yére ak ay dàll wala ay mbaxana li nu ci bàyyi ci ndaw ndawaan yooyu nga xam ne loolu li muy tekk rek mooy nit ku dul waaw joxe la ay montur ay lu bari loo xamante ni nit ñi dañ la koy jox sax ngir yàlla ngay denc rek jàpp na doo fi jóg ay kër am na ñoo xamante tey li nu am ci kër seen dund leer na ne mënu koo mat maanaam nit koo xamante ni am nga nangami kër loo xam ne buñ ko doon seet lu mu néew néew war naa man ñaar fukki kër ci kenn nit ci koo njaboot gi nga koy fàggul njaboot ga sañ ci ëpp ñëpp am na seen kër mënal nañ seen bopp ngay fàgg loolu xoolal tey li nekk hôpital ci malaat yoo xam ne ñu nga feebar ñoo xamante ni ñaata nit a dee ci ñoo xam feebare leen rey feebaru ñàkk luñ fajoo ñaata nit gor ñoo dee ci jaaxle ci itte yoo xamante ni yun mënoon ak yow nga yor ko nit ku dikk na la daa diis la soxla nga ne ko jéggal ma wala xaaral ba fan yi wala nangam te wallaahi latim yàlla jox na la ko xoolal teraanga ji yàlla jox nit ku tëdd ba guddi di wëlbati xelam fan laa war a dem ñu dimbali ma xelam daj ci yow yow daj gim la daj rek loolu sant yàlla la ndax ñu bare ngi fi seen xel daju la beneen bi ci des wallaahi bu xamoon ne amuko ko la ko diis natt na bu baax a baax a baax xam ne yi am nga ko mu ñëw amoo dara loo koy tontu lu du jéggal ma ko wala awma ko wala nang moo ne moom de dalaa yéene aw yiw ndax loolee nga ko doon defal de boo ko ko defaloon moom dina la ca sant yàlla dana la ca fay yàlla mi mën a fay dana la fay te yàlla dana dolli sa alal dana xam ne defal nga ndax yàlla mbiri jaam yépp nag yàlla moo ko méngoowaat fi mu toll loo def ci nit ñi am na addi suqut boo xamante ni yàlla dalay wax na la man xiifoon naa euh, lu tax leeloo ma nga ne ko ah yow sunu borom asawa jàlla nooy xiife mu ne la diw sàngam xiifoon na boo ko leeloon mën nga liir man woppoon naa lu tax seet si woo a lu tax jàppale ñu ne ko yow suñu borom yow mii borom kàttan nan ngay woppe mu ne leen am na sama jaam bu woppoon boo xamante ni boo ko seet si woon mën nga seet yooyu yëpp day tekki rek wane ne eh, nit ki ittewoo mbiri jullit yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku ittewoowut mbiri jullit yi bokkut ci ñun bokk na nga xool sa mbokk wala sa nangam nga mën koo dimbali. lii ñuy denc di ko jëmale kenn xamul di ko fi bàyyil ay xaalis Omar ibnu Abdou Aziz de bi mu tolloo ci sukuraat am ko dikk ci moom ne ko Omar yow de yaa ngi bëgg a dem te yow yaay amirul muminina ginnaaw alal ji bari na ci baytil maal te nga cee bind benn bataaxel boo fi jógee sa doom yi mën koo yor mu ne leen ah alal ji man moomu ko te sama doom yi tamit man ñaari doom rek la ma yàlla war sëgal waxut ci limu ñaari doom waaye dafa takk na ñaari doom yi ma am mooy doom ju baax ak ju bon ñaari doom yooyu rek am te doom ju baax yàlla moo méngoo ay mbiram bàyyee naa ko yàlla doom ju bon nag duma ko fi alal mu ciy bàkkaar ëllëg loola di ma fekk foofu daal di woo xale yi ñu doon xale yu ndaw toog ci wetam mu ne leen sama doom seen bàyyi dafa tànn ëllëg dem àjjana ëllëg dafa tànn taxawaay bu metti ba mu bëgg rek bu ko rombee jaar fa dafa bëgg bu ko suñ borom di laaj mu am lay wu mu toll moo tax mu tànn loolu mënoon na leen fi bàyyil alal ju bari waaye nag alal jooju moomu ko te looli tamit xañu leen àq te doom daal bu jubee yàlla moo méngooy mbiram bu dëngee nag kenn ëpp na fee waccal alal xoolal jooju wax daal di ñaanal doom yi ñu dem waccalu leen fi dara waaye xoolal tey li fi doon ci ay nit ñoo xamante ni seen ginnaaw wallahi asim talunu leen a ñaanal ndax lan ndax alal jun fi bàyyi ñii jëm ne ñii jëm ñële ñii jëm ñële talatun leen sax te bi mu leen ko fi waccal xamoon na ne xale yii mu fi waccal alal ñaar nga ko fi waccal ñaari doom yooyu rek mooy doom ju jub ak ju jubut nga waccal leen fi alal joo xamante leer na le yow mi jur sa njaboot xam nga ci am nga ci ñoo xamante ni jubunu kooku ëpp naa dajaleel alal am na ci ñoo xam nga ne ñii moom wóor la na wóor yàlla ne yow ci sa bopp sax boo muytul ñoo la gën a jub kon ñooñu yàllaay méngoo seeni mbir kooku ëpp na fee waccal dara boo seetee mag ñu baax ña ba ci ñu kii ña boo xooloon Sëñ Tuubaa tey jenn doomam ju mën a wax ne ginnaawam ci jamonoom laa samp kër daanaka néew la ginnaawam doomam yi fi doomam yi fi wacc kenn sëñ Moodu Musaa bi mu fiy jóge li mu fi wacc bariwul sëriñ Fàllu li mu fi wacc sëñ Abdu Laat sëñ Fàllu bi mu tabaxee jumaa ji di ngeen ko dañ ko wax ne ko sax danoo bëgg a defar sa kër yi ngir mu méngoog jumaa ci sëñ Abdou Lahad lan la fi wàcc sëñ Fallou ñooñu ñëpp boo ci dikkee da ngay yëkkale rek bu ci nekk noonu alal ji jëru fii di fi bàyyi koo xam tiir bu ndaw ngay am ci kaw suuf la ngay tëdd ci kaw suuf li ngay tëdd ci biir suuf lu bare bare bare la loola nag li ci amoon solo mooy nga defal ci yàlla defal ci sa bàmmeel dawal ci sa bàmmeel ginnaaw bi ngay dikk indaale woo ci dara te booy dem lu ci yóbbaale dara gis nga boo faatoo montre bi nga doon xoolee heure montre boobu la ñuy njëkk a tekki mbubb yi nga soloon dan naa nan ko teel a dindi ñaata ci perkaal moo lay topp lu tuutee tuuti tuuti ngay dugg ci pax mu lëndëm béréb bu yàgg boo xam ña la fay dugal tey bu nu defaree ba waajal la ba ne nan suul ña la gënoon a jege nga xam ne ñemewuñu woon a toog ci yow ci basak ñemewuñu la woon a laal ak suuf njëkk ba suuf sa jàpp ne loolu mooy ngóor ña la gën a xaritoo ñoo koy kii lu ca desaat ay doom ngay bàyyi ay jigéen ay soxna ñenn ñi ñoo xamante ni te ñooñu jaru ko jaru ko defaralal sa bàmmeel boobu moo la itteel moo la war a itteel waaye lu jëm ci sa àdduna bu ko fàggul kenn nit nag alalam mu ciy fàggul ndonoom la ci gën a yéene boppam loolu dara jaru ko dara dara dara jaru dara koo xam ne sa ndono nga gën a fàggul xoolal nit ki leer na ne li mu yore ci alal fàgg ko ci mën na ci am buntu àjjana bu leer te àjjana jafe na de ku yàlla xéewale nga mën koo am ci àdduna nag santal yàlla waaye ku yàlla xéewale nga mën koo am ba noppi xañ ko sa bopp loolu dara jaru ko dara dara jaru ko ñu ngi sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp di leen baalu ak lii dinañ ko toppaat ndax wax ji lu ci bari dafay gàtt ngir bëgg ñuy seetaan bañ sonn waaye incha allah dinañ toppaat ci jëf te yàlla tax te dara bañ caa dugg ci wàllu ngistal dara bañ caa dugg ci benn intérêt yàlla rek tax loolu lañ fas yéene waxtaan dinañ ci indiwaat beneen jotaay ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Moussa moo nekkoon ci caméraman bi soxna Awa moo réalisé émission bi soxna Khady Niang moo ko doon monté wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. مرتجا منة لنا جريء